ginnaaw bi lenn ci population bu Daaru Marnaan génnoon doon ñaawlu seen état wu marché bi ak it xeer ya fa nekk du doon baram maire bi tey jii équipe municipale bu Touba ci njiitalu El Hadj Ndiaye programme di adjoint au maire nekkit porte parole bi ñi ngi indi ay leeral lu waral sax nag jafe-jafe yu ne mel ci kàddoom ni kat maire bi yéene la am ngir fépp foo xamante ni mooy marché wala lu bokk seen compétence ñu mën fa indi saafara bu amee ay gàllankoor waaye jàpp nañu ni kat lii nag wàllub lenteur administrative moo tax xëy na yembagul ndaxte trésor du mën a xëy rek génne koppar dafa am fu muy jaar te ñu nu seqal liggéey bi pour ñu war a mën a jële fa loolee askan wi di ñaawlu ñooñu tamit dañoo jiboowul ak ñoom maire bi néew fi dafa voyagé ca wax na ne nan def tout pour lu jënti problème mu Darou Manane mu jóge fa. léegi nag comme yéen def tout gi yëpp dafa basé woon ci yéen ngeen def ko bu ngeen paree ñu fay leen wax ngeen ne mënu leen kon léegi damaa bëggoon jot la nga wax ma lan mooy gasoil bi man ma lijjanti ko jox leen ko. ci diggante bi jotuma ko jotuma ko bañ dajawaat fii ci bureau Pape Sarr ba ma gisee ma ne ko maa ngi lay woo jëloo ma te woo nga naa la jot la nga nekk ci dëj man la c'est urgent urgent ma la ko waxee mooy bëggoon a jël xaalis jox la jëkkanti euh, lu mat lu toll seen gaasuwaal ngeen def ko su leen xaalis génnee ngeen fay ma loolu laa naroon léegi nag boobu léegi ñëw mu ne ma loolu ba ma la ko waxee damaa nekkoon ci talof talof te expliqué ma kon mu mel ne kon loolu lépp ku ci dem yaakaar naa ne taxawoon nga ngir lijjanti maire bi lijjanti la nga xam ne ma garawaat ba tey adjoint au bi di porte parole maire bi di ñu leeral ni kat ñiy wax ñoom seen yoon nekkul ci mbir mi ndaxte Daaru Marnaan am na ay kilifa kilifa sax yu responsable te nag seen diggante ak maire rafet na te ñu ngi ciy jokkoo kon ñeneen ñi bu ñu porox ndolu ngir mën a nag yóbbu mbir mi fu mu àggul ba tey ci ay kàddoom. waxin tam booy wax nga seet li ngay wax lan la ñu ngi fi ñu wax ñëpp dégg nañ leen waaye ki nga xam ne gis nañ ko muy soxna suy muy wax joo xam ne am na solo ndax mbir mi dëkk bi dafa am yoon dafa am dafa am ay quartier fa ñu teeru man naan kenn moomu ko ku may sëñ Cheikh Mat Daba Sarr fi mu euh, sëñ euh, Mbacke Daba Sarr mooy ki nga xam ne moom la fa bi teg moom moom kii ba ma bokk kër maam Thierno sëñ Abdourahmane jur ko mu yor dëkk ba yor baatu dëkk ba la nga xam ne ñu ci waxtaan moom lañ ci waxtaan ba mu jëlee dëkk bi da koo dénk sëñ Modou Diop marché bi moo sëñ Koso jox ko ko Koso ak maire bi nag léerooruñ ci marché bi kon kenn ku jóg di wax dangaa jóg di wax waaye responsable marché bi moom jógul ndax mi ngi jokkoog maire bi mi ngi jokkoog maire bi te sëriñ bi ñun daf ñuy wax fépp ci tuubaa foofu mën a dëkk la tàmbale ci Daaru Xudóos ba ci Touba mosquée ba fépp foo fi gis fu ci nekk daa am fu ko sëriñ bi dénk am kilifa fu ma nekk lañ fa war a wax kilifa googu ñun dañuy jokkool di wax ak moom ci sëñ Mbàkke Dara Sarr lépp wax na ko yónni na rakkam sëriñ Ibra mu ñëw ci ñun waxtaan ma jokk na ma waxtaan na ma moom wax nañ maire bi mu ngi jokkoo moom di jokkoo koso maire bi toog naa mu jokkoo koso wax ko lépp loolu nag fekk na vendredi bi nga xamee ni ci lañ pare woon ba waxtaan ak borom benn yi ngir ñëw war a roñ la fa nekk lépp jàpp nañ nag menaces yi nga xamante ni ñenn defoon nañ ko ngir mën a jël xeer yooyu tas ko wala yóbbu ko fenn loolee maire bi du si dox kenn du leen chantage li ñu bëgg mooy ñu respecter administration wu maire bi xam ni kat institution la te dafa am ay procédure yu ko tënk yoo xamante ni noonu lay liggéeyee. ñu wax ca ba wax ci lépp menacé ne fii le su fekkee ne génnewuñ ko ñoom danañ ko bu sotti ko ci buntu délégué sotti ko ci kaw tëli bi loolu nag lañ doon xaar ndax institution lañ yor mais toll na maire kenn du ko buntu xataal kenn du ko teg pression nekkul li ngay defee parce que ci ay sart lay doxee.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 ka nga xam ne mooy suñ Tuubaa ci gox ba wax nañ ne moom loolu nag li tax defuñu koon moom lañ doon diglu ba xam tey la lewee ba xam kenn dana mën nangoo jël benn sartu suuf wala benn kanam di ko teg ci buntu kër délégué wala nga teg ko ci route nationale dellu si waat moom adjoint au maire bi nekkat li leen war xam nañ ko dinoon nag jëlee loolee foofu ndaxte lépp nag yemb na ngir mu mën a am bu boobaa nag doo ko séq ak maire yi ko séq ak ñeneen ñu incha allah nag comme nag loolu lewee jàllee incha allah yaakaar naa ne lu topp ci lewee danañ defar ba nga xam ne lii danañ ko def nañ ko war a defaree buub ko ba mu set waaye nag pression moom du tax ñu def lenn loo xam ne nii dana tax ba liggéey kenn naan ba ma tegee pression bi doxewuñ ci noonu. di fàttali lépp mi ngi tukkee ko si ñenn ñu jógoon foofee si Daaru naan doon ñaawlu état wu marché bi ak ay xeer yi jàpp ni dafa am lu mu bloqué foofee dut baaraam nag maire bi loolee waral nag tey jii maire bi génn amal ay leeral si mbir mu ni mel.